jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek kenn ku nekk euh, sa waay amaat leen di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk ak kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa jël ci biir site bi rek damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam ndax ñi ñuy topp rek dañ leen ci war di sóor dañuy bëgg di am ci njëriñ lu kawe seen jot duñu taatanee sëriñ Ifada Mbacke borom suul ak sulli doonatul ko ñuy présenter te moom laay dalal tey ñu fas yéene waxtaan ci xam-xam waaye actualité dinañ waxtaan ndax daam loo xam ne gis na ko ci kujjee langue politique bi rawatina ci Bassirou joomaay fay ak kii di ministre bi Ousmane Sonko waaye na lu mu bëgg a wax ci làmb euh, Tapha Tine ak kii di Balla gay am na lu mu fa bëgg a wax révélation yu am solo rawatina Modou Lo ak kii di Siteu nag foofu na xam naa ku déglu di nga dégg yéen ñi nga xam ne sax su nekk da ngeen di bëgg a xam kii daan moom ci dëgg bi lay jaar sëñ Ifada damay bàyyi nga néew mbokk askan bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Mhm. di ñaan yàlla suñ borom mu def jàmm ci réew mi. Mhm. tey beral ab ziar ak am nuyoo ci suñu soppe ak suñu taalibe yi. Mhm. Euh, ak xarit yi ak am di jàmm yi. di ñaan yàlla suñ borom mu def ci réew mi jàmm. def fi sutura. te def fi mhm. barke. nuyoo bi day gàtt tey loolu rek lay doon. tarkal la jërëjëf gëj génn bi ndax noonu laa ko mën a waxee ci 221 people ñu la ci topp saa su nekk. Euh, lan la lëlu bu yàgg bi ndax saa su nekkit yéen da ngeen di bëgg lëlu am ci ngeen nekk jëmale ko ci jaamu yàlla yi ak tukki yi euh, bisimilah ñu laata ñu yaatal ci yeneen. dëgg la sëñ Cheikh euh, comme niñ koy faral di waxee rek ne àddina bi ñu nekk. ku egg dañu laa gunge. Mm-hmm. ku xam dañu laa wax waaye ku ñeme dañu laa dee. wallaahi ndeysaan. borom xam-xam dañu koy rus waaye borom alal dañ koy wekk. waaw ñaar ñooñu ku ñu gunge nga ñeme. Wolof Njaay wax na ko lu wër. ñaar ñooñu dañ ma gunge nag ci côté bu ne. macha allah. gëj génn gi fii nag li ko waral rek mooy tournée yi ma doon def. ndeysaan lu mel ni États-Unis mm-hmm. lu mel ni yenn réew Europe yi ak lu mel ni Afrique yi nga xam ne réew yu baree bari yoo xam ne dama fay demoon ngir yokk sama xam-xam. Mhm, lu am solo la ak Inde nga xam ne demoon naa fi jamono yi passé waaw jël fi woon ay xam-xam yu doy waar. macha allah ndax dañoo nekk ci réew moo xam ne. réewam teraanga la ku ko am ñu respecté la ko ñàkk ñu bala. waaw waaw muy Sénégal. lu wër. Euh, sëñ Cheikh. waaw Sénégal gii ñu ne. waaw sëñ Ifada. dañ ne buñ fi tegoon làmbi xam-xam ci wàllu wërsëg. waaw. moo mënut a farak sama bopp duma ma wàll. ndax xam-xam bi may liggéey. waaw moo wax ne yàlla man rek la ko may de. Mhm. waaye xool leen seen bët kan ngeen gis moom ci réew mi. kenn. suul waaw waaw ci rek ci aaj nit ñi. waaw waaw. alal di mhm. am. waaw wërsëg di am. dara mhm. ngay am loolu man. képp la ko yàlla jox fii ci Sénégal. waaw maa koy liggéey. lu wér. wala ku koy def danga koy piraté. nay lu leer. tarkal la jërëjëf mu ngoog loolu lañ ubbee acca dañuy ñëw ci listixaar ñeen ñaa ngi koy wooye seet nga ciy def bu leer naññ nag togaay namoon nañ ci acca ñëwal ma fopp nga am loon ci laay biirewaay euh, dëgg la sëñ Cheikh euh, listixaar loolu ñuy woowee listixaar ak seet dafa doon ñaari nuroo lool waaw te wute cey xaar boo ko déggee mooy ki nga xam ne mhm. da xam démbam waaw xam tayam mhm. mën a génne ba ban bis lay faatu ci waaye nag bu paree it ci biir lisaxaar gi waaw daf koy génneel lan lay def ba am alal wala lan lay def ba am kaaraange waaw wala lan lay def ba muccu même bu fekkoon ni nit ki dafa am ay ndëgg sërëx waaw day feeñ moom listixaar moom rek moo man loolu maa la ko wax bu dee seet nag moom ñaar ya ñu bari dañ koy jaaw listixaar seet moom li man mooy dana génne li nga xam ne moom moo nekk say mbir mën na koo génne de. waaw waaye da ciy yam képp. Ah. mun laa fajal. Mhm. aajo mun laa wax ne la boo saraxee nangam. waaw wala nga sangoo nangam. waaw wala nga duggal ko xalwatu nangam. Mhm. nangam day faju loolu seet du ko génne. la kon li saxaar ak seet dañoo waroo. lu wér damay nag li saxaar ak seet. waaw man bokk ëw ma ci nawle. waaw ëw ci moroom. Mhm. ndax damaa dem ba ci ay réew yu bari nit ñi yéem ma ci. ndax damay seetal nit bay tudd tur. damay li sa xaaral nit ba wax la ban bis ngay faatu billahi lazi laa ilaha illa huwa waaw bëri na ci ay mhm. ponkal yoo xam ne waaw ay asraarkat lan mhm. man maa leen seetal waaye du ma tudd turu kenn kon nga xam ne loolu am naa ci xususiya waaw yàlla suñ borom da koy jagleel la mhm. waaw waaw dafa leer Mhm. yàlla suñu borom daf ma ko jagleel ci lasraar macha allah ndax li may faral di wax rek sëñ seex man mhm. lasraar waaw dugguma ci ngir wut xaalis ndax bu dee teraanga dama koo am bu yàgg mhm. ndax damaa juddu ci teraanga màgg ci teraanga ba toll nii ma toll est-ce que lasraar gi yaakaaruma ci dara waaw dimbali jaamee rek ndeysaan wallahi lazim dama jël vingt et un millions internet laay waxee waaw ma xam bari na nañ ma xàmmee man la sëñ Ifaada Mbàkke xaqiqatul asraar du ma waxantu. Mhm. ku ma xam-xam ne man. waaw teraangay kese la. waaye dama am xam-xam boo xam dama cee fere vingt et un millions. Mhm. muy xam-xamu mala yi may jël suul ko ci biir suuf. waaw ngir aajooy doomu aadama ji. faju mhm. ngir mu am alal. waaw ngir mu samp. ndeysaan ngir mu nekk ci bërëb boo xam ne kenn du ko mën a fakkatal. waaw ngir ku ko laal faatu. moo tax ma ñëw di partager doomu aadama yi waaye man yor naa yeneen liggéey. est ce ndaw la sans pàcc. tarkal la. na leer loolu jaamu yàlla. waaw waaw bi waay. Mhm. dafa am solo li ngay wax micro bi. damaa am. Mhm. damaa am teraanga démbul. Mhm. tey doog a ñëw. macha allah jërëjëf tawfiix la. jërëjëf Serigne Ifada Mbacke nee naa leen kooku mooy borom suul ak sulli fii la lépp di leere saa su nekk acca dama ñëw ci ñi nga xam ne dañoo bëgg uh, wërsëg dañuy jàmbat lu bëri di ñaan lu xaw ma dafa tag léeg-léeg ñu naan sa wërsëg daa tag il faut ma def nii jaar ak yow sa bidib bi nga ubbi leen waay dëgg la sëñ Cheikh laaj nga nag lu ma sawar. Ah. nga léeg-léeg ndeysaan nit may woo ne ma. Euh, sëñ bi man de wax dëgg yàlla dañ ma yàq wala man dama bëgg wërsëg man xam lañ laay wax. fi bari képp koo xam ne jërul ngay ñëw ci man de. képp koo xam ne dafa dem. waaw ci bërëb di ñaan lu ba sonn di ñaan lu ba sonn amul. na ñëw ne ma sëñ Ifada. waaw man wër naa ba sonn sëriñ bu wér waaye gisuma. wala wër naa walla am-am ba sonn gisuma. Mhm. boo ñëwee. man bokkuma ci sëriñ si nga xam ne dañ naan la temps la rek danga koy joxe déedéet. Mhm. man loo génnee say sarax rek laa lay laaj. tarkal la. mooy moitié ba rek. Mhm. nga génn saraxi. wallahi alazim bu ma xoolee sa rawxaan. waaw xool sa xuddaam. Mhm. xool sa buruj. waaw danaa xam fan nga fare. bu dee yoonu ginaar gi moo lay may alal. waaw yoonu ginaar gi nga xam ne. dañ koy gas dañuy gas ba mu xóot. ñu dugal ko ci biir suuf boole kook aaday doomu aadama ji. ci aajo ji liggéey turu yàlla mhm. lu tollu ci fukki fan ak ñeent wala mu doon juróom-ñaari fan ça dépend ci nit ki ni xuddaamam di doxee waaw ndax lépp dañ koy xool ci ilmu nujum mhm. billahi lazim bu génnee ba ñu defaral la bàgg bi ak ndomba gi waaw wallahi lazim ak sangat yi waaw amul lu lay am alal ci àddina la ko wax cafan yi boo bokk yaa ciy sut tarkal la noonu nag la amee ci naat gi waaw noonu la amee ci ginaar gi waaw noonu la amee ci bëy wi mhm. noonu la amee ci xar mi waaw noonu la amee ci nag wi waaw waaye fan yi ñu weesu dama cee defoon promo bu am solo waaw ñu baree may sant ka gërëm te bañ ko amee léegi amagul fukki fan tarkal la xanaa maa mën a may alal lu wér ginnaaw ba yàlla jàllee tarkal la waaw xam-xam bu wér laa yore mhm. damaa gëstu Afrique ba jeex dem Inde toj ko mhm. mokk rumbax waaw man nañ ma nañ ma defal différence ak xale yi waay. tarkal la ndax du ma seen morom ci loolu. jërëjëf waay acca nee naa leen numéro moo affiche noonu ci suufu barre d'écran bi leer nañ yow contacté ko rek dina jëflanteeg yow ba soxal sedd guy. acca ñu desante ci biir yaatal bu baax a baax ci biir émission bi samp nit yaa ngi ciy def lu yéeme. Hmm. sëñ Cheikh. waaw. sëñ Cheikh. waaw. Mhm. sëñ Ifada. sëñ Cheikh. sëñ Ifada bismillah. dama ne buñ tëggoon làmbi xam-xam fii ci senegal mhm. ci wàll am-am. waaw wallaahi lazim. wallaahi sax nañ xool ku ko neex mu mu mu seede ko. Mhm. ñu jël ay doomu aadama indi leen. waaw ne sëñ Ifada. ñii dañoo wut alal ba sonn xam nga man soxla ma ko am alal ba pare. waaw waaw ndax ko am alal la ma la digal mooy wutal kaaraange wala leneen. kese mu ngoog de. waaye dama ne. Mhm. koo xam ne dafa wër ba sonn amul dara. waaw waaw. fexeel ba la sarax yi ñu lay laaj nga mën ko wut. est-ce que waaw gis nga ndomba yi ngay tiim nii. ngoog de ndomba du fanaan yaa ngoog de waaw gis nga damay liggéey samp boo xam ne. dafay ànd ak xalwatu juróom-ñaari fan. Mhm. ànd ak riyaada. waaw ñetti fan muy juróom-ñeenti fan. waaw. war. sëñ Cheikh man duma caaxaan. waaw sëñ Cheikh. Mhm. man du ma caaxaanee xam-xam. wala ndeysaan lu wér. gis nga sama samp képp ku ko sempi faatu. maa la ko wax. kum koo xam ne man maa la samp ci wàllu am-am. ku hmm. xeex dee ak kum mën a doon. waaw donte xut bu samaan la boo xam ne. Hmm. day dem aras ak a ñëw bu lay laal di faatu. allah akbar sëñ Cheikh. cey damaa liggéey turu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala. wa ba gis yàlla jëhran. ci zahir cey. allah akbar. la ilaha yàlla suñ borom ne ma. Mm. suñ ifaada. waaw ana rabbukumul aala. sey. ne ma yow loo loo ñaan mu nangu. ay dahlallah kenn mu suba wax lii. ndax kat. yàlla suñ borom dafa defal sama maam loo xam ne. waaw. Serigne Touba wax ko ko. ñoo mm-hmm. bokk ñoom ñaar ndey ak baay ci Zahir. mooy sëriñ moor Diarra. Mm-hmm. sëñ Touba daf ne ko. waaw. sëñ Mor yónnante bi de jóge na fi léegi. Mm-hmm. waaye yónnante bi nee gërëm na la waaw yàlla suñ borom nee na gërëm na la waaw man cheikhul xaddim sa rakk man gërëm naa la waaye yawit suñ borom nee na gërëm nga sa bopp moo tax ñu ko doon woowee borom ñeenti ngërëm yi man kookoy sama maam man bu ma ñaanee dama war a ñaan bu ma ñaanu damaa war a ñaan rawat na ma xam loolu doon ah. ko ba pare mhm. la doon koo xam ne dama gëstu xam-xam lu wér gis nga ndomba gii ma ma tiim nii ndomba gii ay waay euh, damay bëgg lu leer ndax sama yaram dafa tàng. bëti xonq yi ci ne ci biir waay. mu ngoog de gis nga ndomba gi. waaw jël ko. moom la ñuy liggéey. Mhm. nag wi ñuy suul ndomba gi incha allahu taala du fi fanaan. tarkal la waaw am na borom. ndomba gi ñaar fukki bootal la ak benn ndomba gi gis nga nit di mandee. waaw la ndomba gi mandee dafa am ay parfum yoo xam ne moom lay jër mooy xonq yi nga gis ay bootal la. waaw waaye hit mi ngi am ñaar fukki gaaw ak benn. barki xaadimu rasul. waaw ndomba gi ku am da nga tekk ak foo mën a ne. tarkalla. demal ba ci àll kiri koro ba nga toog fa la lay tee am alal ci àddina gisuma ko. la ndomb gaa ngoog ñàkk ko am wóorut. lii mooy ndomb ak alal gi nga xam ne ñu koy liggéey ci nag wi. Mhm. waaye lii ku amul quarante cinq ans jëm kaw duñ la ko liggéeyal. sëñ Cheikh pour mu leer. mooy bii. waaw mu ngoog de. dafa am nag boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci xar mi. Mhm. waaw lépp laa détaillé doomu aadama mu ngoog yëkkatil war leen ndax fan yii dama cee defoon pormation te promotion bi dafa jeex. waaw waaw moo tax lépp dama leen koy wan mu leer. Mhm. sëñ Cheikh. waaw ndox bi ma téye nii. mu ngoog de. kilifa yu bari ci réew mi ñam nañ ko. tarkalla dama dut am nettalikat. wallaay ndeysaan noonu la ndax ab sëriñ. Mhm. ak bàmmeel ñooyam. moo wàlliw waaw. ñooyam mhm. dañuy nëbbu walaay ndeysaan loolu moom feeñal dara bii mooy yoonu xar ma ñuy suul fukki fan ak ñeent ku ko am foo mën a nekk nekkal États-Unis nekkal Canada nekkal Sénégal nekkal ku la neex foo ko amee ñu liggéey ko bu eggee da nga teg wallaay ci sa biir yi mbokk force nag ginnaaw ba yàlla dogalee la muy dogal ba pare. loolu leer na naaj. terkal la xam-xam du ma ko caaxaane. waaw. nag bii nag ma yëkkati nag moom mooy. daj ko buggi mooy kan. <laughs> tuut bari mooy bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci naat gi naat bi moom foo ko fekk juróom-ñaari gaw lay doon mu ngoog de juróom-ñaari bootal uhuh. doon ànd ak samp ndax lii doonul ne lii rek lay doon day ànd ak jaaro juróom-ñaar day ànd ak benn béyjën boo xam ne géej uhuh. lañ koy suul ak benn béyjën bu ñu nàndal boo xam ne sa kër lay nekk ndomba gi soog a ñëw oh. képp ko am da nga am alal insha allahu taala ak oh. koo mën a doon waaw nay leer nay leer mu ngoog de li tax nag moo ubbi ko te ñëpp xam ma ko mooy wàllu ginaar gi waaw ndax ñu bari moom lañ gën a xam. yëkkatil gaa yi gis ko de. moom moo nekk nii mu ngoog de. day naan ni nit di naanee ndox lay naanee. macha allah moo nekk nii. xam-xam am na loo ci wax mu def ko. allah akbar. ci ni ko yoonu nag wi defee. Mhm. yoonu ginaar gi di ko defee. waaw yoonu bëy di ko def. Mhm. yoonu xar mi di ko def. yoonu naar gi di ko def moom mhm. day wax. tabarkallah lépp loo ko wax boo ne ko woon nangam ak nangam ak nangam laa bëgg billaahi la si laa ilaaha illaa huwa loolu dana am. bu amul ma dagg sama course dem sàmmi. la ilaha sëñ Cheikh. waaw loolu bu amul. waaw waaw ma bàyyi ñaan. tey loolu bu amul. waaw ma gedd man fi ma bokk man. loolu leer na tarkal la. macha allah du ma waxantu. waaw waaw. du ma defantu. ndax xam-xam dama koo gëstu. Mhm. jàng ko. waaw fay ci ñaar fukki million ak benn indil ma sëriñ bu fay fukki million ak benn ci xam-xam. sama wax day leer lu yomb waaw. xam-xam jar na lu nekk wala ndeysaan xam dama koo dondu. nga mhm. noppi dem jàngi ko. tarkal la moo tax lu ne am naa ko ci. macha allah. jërëjëf waay waaw jërëjëf sëñ euh, Ifada Mbacke am na solo ñu des ba léegi yaatal xam-xam loo ko jënd rek jar na ko. acca nopp bi gaay di waxtaane sa nopp moom ku bëgg caaxaan bul ñëw nay leer rek ñëwal ma ci nopp bi allahu akbar ci allahu akbar bismillah da ngaa tudd loo xam ne da nga sama yaram daw. Mhm, bi. maa ngi maa ngi gërëm nag waa Philadelphia. Mm. États-Unis waaye di gërëm bu baax waa Chicago mm-hmm. ce que ndax dafa am ay nit yoo xam ne mm-hmm. dañoo sonnoon lool ci wàll waaye ne ma ku ne jox nan ko sunu xaalis di ko nopp loo munul nopp waaw nopp du lu yomb ne ko man munu ma ma ne ko moitié rek laay laaj ak koo mën a doon fexeel ba waaw mën a def listixaar gi waaw ma ne ko listixaar gi bu ma ko defee xam yéen ñaar seeni tur waaw bu ma ko listixaaree lu ma la ci wax du deñ wallaay ndeysaan ndax man yàlla moo may digtal mhm. te damaa ànd ak fukki jinne ak benn yoo xam ne duñ ay caaxaan allah akbar cey dëh buusin waaw mabra kuusin cey saxla yuusin mhm. hambassin alxay suusin kafa duutin mhm. say xammin say xëysin wallahi alazim bu ma leen limoon boo moytuwul jotaay bi du yem lii ba ba du leen woo du nar du leen naree woo rek tënk ko foofa ñu jàll ci leneen. bu ma eggoon laa wax ñu egg si fii ndax man sama aajo du fanaan. kon de bul àgg ba ko foofu de ñooñu laa ko yàq émission bi tarkal la képp ku waay bëgg. ak hmm. fu a nekk. bu ñu déggoo. waaw wallaahi lazim trois jours laa lay may trois jours. bu dee ku nekk fii si réew mi. Hmm. nopp gi day nangu bu dee ko fi néewul. Hmm. fukki fan la dafay yam. kii mooy sëñ Ifaada Mbàkke borom suul ak sulli. borom kii waxantu ndax sama xam-xam. tarkal la. mais na man la ko yàlla suñ boroom jox. wallaay ndeysaan fii ci réew mi dafa leer. teel a nangu nag. waaw day yombali duma. lu wér nga wax jërëjëf ñu dox ba léegi jàll ci beneen ponk yaatal des ci xam-xam kooku mooy Serigne Ifada Mbacke. atia ñu ñëw ci wàllum papier mu di kayit suñ ko waxee nag xel dina jëm ci séjour passeport visa ba ci ñi nga xam ne dañuy def lii di examen yi. Hmm. nga xam ne moom lañ dëgmal. Hmm. waaw faatu faatu ak Modou Modou sot nañ ci. lijjanti kayit nii nii de li ma fi garanté ci ren. waaw. ci ay nit mën nañ juróom-ñeenti téeméeri nit mooy junni bu manqué téeméer. macha allah neuf cent personnes. tarkalla. sëñ Cheikh. waaw sëñ Fada. wàllu kayit dañ maa jëlee réew ak réew ma dem toj ko. allah akbar. man xamu naa laa bëgg xam. waaw. foo mën a nekk. waaw. li gën a gaaw nag mooy fexeel ba. amba fa ngay dem di lijjanti ka kayit ya. waaw naa xam kooku. ci ci ambassade ba bu xamee mu jeex. wallaay bu dee xaw ko. Mhm. fexeel ba xam directeur ba. loolu de yomb na. kon kay wala nga xam. <laughs> Hmm. maanaam dëkk bi nga nekk commune bi nga xam ne nekk nga fa. waaw wallahi alazim ma liggéeyal la. allah te ma la liggéeyee amul ku lay teree am këyit nag. xam-xam am na macha allah. dama ne man ñi ma àndal ci rawaan yi may liggéeyal. waaw. sama fëgg dënn gii nag doonul ne kuy ndamu. walaay damay sant yàlla suñ borom. Mm-hmm. ndax yàlla suñ borom moo ne ku ma sant ma dolli la. te dama koy sant ci li ma may. waaw aw ma moroom ci noob. lu aw ma moroom ci wàllu këyit. waaw aw moroom ci wàll alal. Mhm. aw ma morom ci wàll tasxiir. aw ma morom ci wàll kaaraange nay leer. tarkal wax naa la nañ ma différence ak ñii. waaw waaye nag. Mhm. sëñ Cheikh. waaw këyit mosuma cee ñaanal nit mu échec. tarkal la. ndax man. macha allah. damaa aaru ñagu. ci sama xam-xam. Mhm. am na solo de. dama cee aaru ñagu ba noppi man cee def ay résultats. waaw def ci résultat ñu seede. xam nga def ci résultat. waaw moo waral nga dem ba ci kaw bato yi nga xam ne mooy batoy guerre. yu États-Unis waaw walaay lancim vidéo baa ngi nii. la dafa leer toog ci kaw. defee émission. waaw. la ma ko may nag mooy du lenn. lu def ay résultat waaw waaw. sëñ Cheikh waaw sama lépp day leer. tarkal la nay leer rek jërëjëf borom suul ak sulli kooku mooy sëñ Ifada Mbacke acca ñu yaatal ba léegi laata ñuy jeexal ci actualité mu di xew-xew jamono dañu ñëw ci kaaraange mu di wàllum protection jamono ji léegi képp ku ko amut nag demal wuti ko fépp foo ko yaakaar. dama ne wàll kaaraange. waaw ak gu man a doon nag. moo mhm. xam gi nga xam ne dafa bawoo ci ci ci ci ku mën doon. waaye ah. man nag damay wax ne sama lépp dama koo tënk rek ci juróom mala yooyu man ci laay liggéey amu beneen liggéey. waaw waaw. alxuraan turu yàlla laa lépp ci mala yooyu la yàlla jox sirru bi ci la ko wax kaaraange nag ak ku mën a doon waaw të wala mm. wàllu kaso wala yoon doo ci am yoon waaw ak lu mën a doon mm-hmm. ci béy wu ñuul laa koy liggéey ak koo mën a doon. béy wu ñuul nag wu ñuul sànni sa doole fi mu ci laa koy liggéey. béy wu li may def nag mooy jël téere bi. waaw saxal ko béy wi. waaw dama ko doon takkal. waaw dama koy saxal béy wi. waaw suul béy ci suuf juróom-ñaari fan. allahu akbar muy dund. ma sulli ko muy dund. ma doog koo lewetal. laa ilaaha illallaah. juróom-ñaari téere boobu. sulli ko muy dund bu génnee. dégg boo mën a def ci àdduna kenn du ko tudd. mukk ci àddina. ta ku la tudd wala mu lay wax lu bon day am ay jafe-jafe. ku liggéey faatu. deli boo def ak lu mën a doon da nga ci génn ci kaaraange. li ci jàmm ak salaam. kaaraange eh, maanaam kaaraange am na. waaw. waaye du ay caaxaan. ndax kaaraange moo gën a jafe am alal. walaay ndeysaan. kon boog suñu sëñ Cheikh. sëñ Fada. sëñ Cheikh. jërëjëf wallaahi laazim. wallaahi ndeysaan dafa leer wàllu kaaraange aw ma ci morom. maa la ko wax wàllu bayra aw ma ci morom. tarkal wàllu ubbi ko aw ma ci morom. wàllu xatfa aw ma ci morom. waaw wàllu bàgg aw ma ci morom. mu ko wàllu jaara aw ma ci morom. wàllu ndomba aw ma ci morom. wàllu kattan aw ma ci morom sëñ Cheikh nañ ma def différence ak gars yi. tarkal la jërëjëf. gannaaw kii lu ne nga nekk ci di xool li nekk ci biir réew mi ak lay xam ne mu ngi ñëw nga di sëriñ su ma la ko laajee war na la koo laaj politique Sénégal ni muy doxee lan nga gis ci réew mi fi mu ne nii. suñ Cheikh laaj nga mën a loo ne naan nawet bi nii ñaa ngi naan nawet bi nii ñii hmm. naan moytu leen lu ne ñaa ngi koy wax sëñ Fada loo gis ci réew mi waaye. li ma gis ci réew mi de mooy jàmm ak salaam. waaw tarkal la. loolu de ci la lépp ren ren waaw. ren ci nawet bii ñu dëñmal. waaw. ak salaam rek am. macha allah calcul daaw li dee ci ay nit. waaw boo ko xaajee fukki xaaj benn bi sax du dee ren. amiin waay nawet yëpp ay nangu. yal na am yal na si di borom dégg la waay. waaye li may wax nag mooy di ko ñaan ñëpp. waaw. képp koo xam ne mën naa togg këram juróom-ñaari ndawi laax saraxe ko. waaw wallaay laasim atam ren mii dana ko dàqal. ban bés noonu ban bés ci bés yi. li ci gën nag ci bis bu mu koy def ñaari bis la. waaw benn mooy altine wala alxames fu mu ko ci defee baax na. jaajëf waay. tarkal la altine wala alxames. fu defee baax na bu ko munta def na ko wax ñu defal ko ko. tarkal la. dana aar ak njabootam. waaw dana ko aar te sëñ Cheikh réew mi ñu nekk. waaw dafa naqaree liggéey. <laughs> maanaam moom dañ lay jiital ba pare di la fakastal. cey te wax naa la nit mënoo koo jox ne ko réew mi yaa ko yor. waaw muy. Mhm. président. Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaw moo Ousmane Sonko ak premier ministre Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu sell mi. Mhm. Euh, <laughs> sëñ Cheikh. Hmm. sëñ Fade dañoo wax ne am réew. waaw. juróom-benn yi moo koy yor ta loolu dafa sooke ci ñun suñu réew mi. waaw wala yéen ay sànn. mooy bëggante. waaw loolu solo yéenante jàmm. loolu lépp dimbalante. waaw am kilifa. Mhm. gu mat kilifa tàng nangu ku leen yilif. loolu solo ngoog nag. waaye ñu bare dañ ko nanguwut. nga leen ndeysaan loolu de moom. waaye nag li tax loola mën a jafe mooy. ñu mhm. ko nanguwul ñu néew lan. waaw waaye damay xam ne. ba mhm. àddina sosoo ba tey. waaw amul menn mbooloo moo xam ne ñi nga ànd. mbooloo mi yëpp ànd munul nekk. waaye nañ fexe ba à chaque fois ñi nga xam ne ñooy jiite. waaw te jiitu. waaw luñ luñ doon bon bon nañ ëpp majorité. waaw kon lañ bëgg a doxal nañ ko doxal. tarkal képp ku fi yàq. waaw rëq leen ndiggam ak ku mën a doon. tarkal la du doon sarax yooyu génneel président ne ko président Bassirou Diomaye Faye génne ko wala nga ne Sonko na nga ko génnee. ñoom ñaar kenn ku nekk saraxam lan la ñoom yàlla moo leen tànnal boppam aar leen. waaw li ma leen digal mooy nañ fonk di wàcceelu ay kaamil Sénégal la soxla. Ah, nañ wàcceelu ay kaamil rek. nañ wàcceelu ay kaamil waaw nañ di toggulu ay laax. waaw Sénégal actuellement ci atum ren mi loolu la soxla ay laax. tarka la laax ak soow rek la soxla. cey ba do jarut gëléem jarut rey nag. non non loolu soxla wu ko. tarka la loolu makee ko soxla woon ñun soxla wunu loolu. waaw <laughs> waa CECA bi ñun alquran la ñu soxla. tarka laax ak soow buñ ko defee réew mi buñ ko bëgg a yóbbu dafay egg. jërëjëf waay tarkal la ñu doxal jàll ci làmb ji dox ci diggante Tapha Tine Balla Gaye bëgg na ñoo xam kii daan de coow li bëri na de. Hmm, hmm. waaw ji du yomb de. lamb ji dee leer na ma nii ma nii ma nii ma nii ma sama loxo bi leere sa tenk loxo yi nii baaraam yi la lamb ji leeree allahu akbar kon dikkal waaye nag euh, lu doy waar lu doy waar dafa am ci lamb ji muy lan noonu jamono bii may wax ak yow waaw tembe waaw ma lay laaj ngay tontu nii ma lay nga may laaj may tontu waaw wallahi lazim waaw Balla Gaye moo nekk ci kaw moo ne ci kaw waaw tembe nii nag. waaw waaye nag liy mottali affaire yi ci seen diggante. moo tafaati ne ko. waaw rikki nañ ko bu yàgg. luy loolu. rikki mooy mbooleem gàllaaj bu mu amoon toj nañ ko. de waxoo jàmm di. man du ma waxantu. cey ndax man faalewu ma leen. kon de ëppale ma dara. kon de mbokk Balla Gaye mii may tudd jox ko. Mhm. faalewu ma ko. ndeysaan ëppalewu ma dara it. Mhm. ndeysaan. ah kon dañu ay mbokkam nañ. da nga maa da nga maa laaj rek. wala moo nekk ci majorité moo moo ëpp. moo gën a taxaw li nga gis rek ngay wax waaw. jamono jii. Mhm. biram yëpp ci xabaa an mansuuran la maam dafa dafa tas. ca te waaye loolu lu ciy lu ciy solution. mu jugaat rek. te na nu mu gën a gaawee. nag génn ay sarax. waaw ah, ndax combat bi de soreetul moom. ay sarax képp moo ko téye. cay te bu dof dof loolu loxoom yooyu nan ko ñeew ba mu ne ngoddu. ba du mën a def nii. wala bu defee nii bu naan nii di daanu yéene ma ko daanu walaay ndeysaan waaye li ma gis rek laa wax danga maa laaj ma hmm. ma wax li ma gis lu wér waaw na góorgóorlu te xam ne li des si làmb ji lu ne mën naa am waaw waaye sarax ak ñaan rek mooy tourné ndeysaan làmb ji li koy joxe ci ñoom ñaar ñëpp waaw doonu sangu de lan la ay waay lan la sarax kese la ah. te sarax mi ngi sama tenk li waa du suul du dara non non du suul du suuru sarax la rek non non du suul du suuru waaw ah, du sangu dara sarax la. sarax fruit wala li ñuy saraxe. ay fruit la bu bu ci kenn rey. ah bu ci kenn rey. ku ci rey daanu. ku ci rey ñoom ñaar daanu wax naa la ren. waaw réew mii du atam rey ku rey daanu. laa ilaaha illallah. sëriñ su leen reyloo bañ leen. waaw dañuy fen <laughs> leen rey daanu. loolu leer na jërëjëf. ñu jëm ci combat bi nga xam ne moo di combat couronne bi. Mm-hmm. ki ko yore mu di Modou Lo Siteu. Mm-hmm. combat bi coow li bëri na de. man bu ma doon Modou Lo rek waaw man bu ma doon pari foot ci Modou laay teg. <laughs> ah si te saa waay yàlla hmm. damaa xool. waaw dama ne maanaam boo xoolee. ci xam-xam waaw Modou Lo ëppale lépp. ah lépp nag lépp. gàllaaj. moo ko ëpp gàllaaj physique. ëpp ko physique. bëre. dax ko bëre. ginnaaw dax ko dóor. ëpp ko ah. ginnaaw te li gën a garaaw ci làmb ji te làmb ji fa la jëm ci kanam tuuti kenn dootu taxaw si géew yi sangoo wala koy sangoo keren ngay sango <laughs> ndax secret bi daan mbër du ñëw làmb billaahi làmb waaw lay daan mbër du ñëw làmb tey mbëri dëgg waaw am ñoo xam dañ leen teel kurus kurus ñaata nit laay duggal xalwat ah, waaw laa yor boo xam ne dañuy liggéey ci lépp tarkat la waaye nag neen Siteu waaw yéen laay wax ku jot lii nag ko ko wax waaw na dem defi jaay sarax ay sarax rek moo ko mën a jox ndam. dara. tey bu demoon it ba ba am defi sarax pare. waaw ci fakastar ci heure lay daanee. wasalaam jërëjëf.